sama dund di jeex. noonu laa ko jàppoo. mais gis nga nañ lay def ci réseaux sociaux ay 72 heures rek. ay saaga nekk da ku ma ci rey. <laughs> après bu demee fee nga dem safara ma dem àjjana c'est simple pour moi c'est pas compliqué li nga wax les ces attaques là bon. Mhm. ça mentalement moom loolu manuma yëngal et y aura toujours du répondant à chaque fois que buñ ma attaqué euh, su ma jénnee du ma leen attaqué waaye jour boobu laay gën a a wax sama xalaat. Mm-hmm. waaw jour boobu laay gën a mën a gëstu ji laay gën a mën a liir yi laay gën a mën a jàngi mm-hmm. pour gën a mën a wax sama xalaat ci réew mi tey courage boobu est-ce que mën nañ xam secret bi secret bi lan la non je man liberté dama kaa mës a gëm mm-hmm. surtout liberté d'expression bi ñuy bëggee nekk maçon ñi menuisier ñi prof ñi leneen man damaa choisir wax donc loolu nag ku ma ko bëgg a xañ te pareegu ma defi beneen métier non sa va être très compliqué du la ko bàyyee du la ko yombalal donc looloo tax à chaque fois ma xalaat fi ma jógee ba fi ma yegsi du ma nangu ay nit pour leurs intérêts personnels wala pour amour bu ñu am pour beneen nit. Mhm. sama yoon nekku ci kum neex nga bëgg ko la neex tax man nga bëgg ma noppiloo te xamoo lu ma daj ba yegg si fii tey. Mhm. non ça va très compliqué pour yow du compliqué ci man ci yow lay compliqué parce que pareegu ma pour noppi. Mhm. man su may gis euh, Ameth Ndoye boobu ma gis euh, même Ameth boobu laay gis ci plateau yi souvent dama naan Ameth nit ku am moral la. nit ku euh, fasaaxa maam nit ku am gëm-gëm la ndax euh, Ahmed boobu ba léegi gars yi ñu ngi coow ñu ngi wax mais Ahmed boobu ba tey moom laay gis ci plateau yi. Mm-hmm. waaw no li ko li ko li ko li ko waral tamit mooy damaa jàpp ne damaa jàpp ne maa nekk si dëgg. te jamono ji ñëpp xam nañ wax neexul. waaw loolu moom dëgg la et je me suis dit que les premiers instants bi ñuy doog a jël nguur gi que donte man kese la. Mm-hmm. dinaa wax. et eh, ñi nga xamante ne sax doon nañ leen jéem a noppiloo am na ñoo xam ne ñu ngi ma siy dégg def nañ leen 72 heures. Mm-hmm. man woo naa leen téléphone ne leen bu leen riposté je m'en charge jël naa combat bi def naa ko sama combat <laughs> personnel. ñu si bëri dañ ma doon ree sax <laughs> ñu ci bëri ñu peut-être ñu dégg ma dañ ma doon ree mais lan mooy motivation bi. non parce que damaa jàpp ne ku nekk daa sañ a far fu ko neex ku nekk mm-hmm. daa sañ wax xalaatam te kenn amul droit ne man fii laa far keneen ki amul droit far feneen mm-hmm. wala man sama xalaat lii la keneen ki du fi waxee xalaatam loolu laa ne man duma ko seetaan ci réew mi dinaa ko xeex ba ñëpp xam ne xeex naa ko mm-hmm. fu mu yem neex mais réewum Sénégal moom non euh, comme nu ñu koy waxee pensée unique du fi am et liberté d'expression dafay continuer donte man kese maa koy xeex waaw am ñoo xam ne dañ may woo samay mbokk yu nekk bitim réew. Mhm. ñii eh, duñ samay mbokk mais ñoo dëkkandoo. Mhm. Sébikotane Sébikotane parce que dafa bëri ay ay nit yu nekk bitim réew. Mhm. diaspora bi dañ fa bëri. souvent dañ may woo ay waay xool ñu si ñun dañuy werante fii dañuy xeex dañuy xuloo ma ne leen non bu leen xeex bu leen xuloo man kese mën naa ko xeex mën naa ko xuloo parce que man su ma nekkee si dëgg mu leena li may wax dama koo gëm. man force bi may àndal yéen ñëpp bu ngeen ñëwee di ma sotle mënoo leen ko am donc mën naa xuloo ne vous en faites pas bu leen leen sax tontu bu ñu leen saagaa bu leen mel mel leen ni xamoo leen ma. Mhm. man je le reste je m'en est-ce que parfois booy génn sa kër di dem soxna si walla njaboot gi wala parent duñ la ne ah Ahmed xoolal li ngay wax boo demee ci plateau yi àdduna wóoratul. <laughs> non non ils sont euh, prêts depuis ah. c'est mhm. pas événement yi. li ma yàlla mhm. dimbalee nag Thierno lenn la. mooy que man dès le bas bi may nekk. CM Sébikotane mm-hmm. ñi ma ñi ma doon entouré xamoon nañ ma yu mm-hmm. si bëri dama ko daan bañ def yu si bëri dama si daan bañ dem suñ ma daan wax lu tax ma leen parce que man li ma métier bi ma bëgg a defi ëllëg mm-hmm. damay ami tour Sénégal te bu ma amee tour Sénégal il faut que ma fexe sama passé nit ñi bañ ma koo xase loolu je me suis toujours battu pour cela donc bi ma yàlla dénkee njaboot aussi dama leen ci préparé du ñu jénn ñoom sur les réseaux sociaux du y compris man ah. Mhm. man sama <laughs> suñu kër même anniversaire amul posté photo nit. Mhm. parce que bëgguma leen exposé man kese maa décidé jël métier bi donc man maay nekk au devant ñoom ñu ñu gérer seen seen vie bopp. maintenant tout ce qui va se de ma carrière. Mhm. loolu aussi préparé naa yàgg naa leen wax ne bés dina ñëw ñu sosal ma saa yi ma gisee actualité ku ñu sosal. wala ku ñu wax wax bu ñaaw ma leen lii lii mën na ma dal. su su ma dalee doxee leen nii taxawee leen nii defee leen nii. l'essentiel bu leen may nit ñàkk fayda ba si seen live yéen muy ñëw. di ci dugal suma live ba leen ciy yab. Mhm. ngeen di dox ci mbedd nit dab leen bëgg leen a yab parce que man damaa def dara ci télé bi wala damaa wax dara faut jamais accepter cela. Mhm. ni ngeen koy bañee nag mooy bu leen tontu kenn bu leen wax ak kenn. Mhm. bu leen débattre ak kenn lu waaye wax sax bu ngeen ko mënee wax dëgg la. wax leen ko dëgg la parce que bu ngeen ñëwee ci kër gi soit xam ngeen seen papa. xam ngeen seen jëkkër ou xam ngeen seen frère. mais ko comme ni ngeen ko a a jël suma mu simisé wu seen bos wala mu yàqal leen seen bos bu subaa du ngeen mën a dem resto du ngeen mën a foy du ngeen mën a defi mhm. donc nit yu ñu préparé lañ psychologiquement mhm. ci événement yi di xew yëpp moo tax ñoom it dara safu leen si parfois nag mhm. ñu dégg yenn tuuma yoo xam ne ay reena leen jàpp soo xamee nit ki <laughs> da naan da naan kiy wax lii est-ce na kon Moussa depuis ba nga commencé wax c'est vrai que coow li bari mais gis a goos yi daal wala dégg a goos loo xamante ne mën na tax nga dellu ci ginnaaw non non non non non non euh, benn yoon daal laa mës a gis sama jabar mer. Mhm. li ko merloo mooy parce que dane moom tuuma yëpp man na ko accepté sauf benn nit bu doon def live ne man damaa abandonné sama jabar <laughs> ak sama doom. Mhm. mu ne yow ni nga mel si doom. Uh-huh. ak ni nga mel si njaboot. waaw cest bii mënuma ko accepter. mën naa uh-huh. accepter yëpp sëf sëf sëf sëf bii. Uh-huh. <laughs> boobu moom daf ko métti woon. def dara suñu kër leen a bàyyi ah nekk Dakar di jaay taar. <laughs> te waa ji te daf ko wax noonu rek. voilà waa ji <laughs> moom da ko métti xam ne man. ñi ma xam ñëpp guddi guddi se bi lañ may wooye donc man na laay abandonné sama sama njaboot donc mu metti ko nag. jour boobu moom xam naa ne am na lu ko métti. jour boobu laa ko njëkk a dégg mu naan damay def laay <laughs> ma ne ko non non jaru ko am na wax yoo xam ne hmm. surtout benn mouvement la boo xam ne ñëpp étiqueté lañ leen fenkat hmm. <laughs> donc ñu fenkat yeneen parti yi da wax ñu bàkkee leen neneen hmm. mais ñoom ñëpp boo waxee bàkkee nañ leen ay fenkat donc ñooñu jarul seeni wax nga ci attardé wu ndax man amoon na benn jamono ma xawoon tiit sax ma gisoon ay image ay vidéo États-Unis ñu ne ah, ñu ne Ameth Ndoye góor jigéen la <laughs> man ma tiit ma ne mais Ameth Ndoye bi ma xam boobu la ñuy wax wala du boobu affaire bi jaaxal ma ba pare ma gis Ameth ñëwaat ci télé bi am benn normalité toog di wax quoi. non mais en xam nga xam nga tey jii nii daf ci am loo xam ne man duma ko accorder l'importance. Mhm. ce qu'ils attendaient mooy ma toog fi naa leen du góor jigéen. góor mhm. jigéen la c'est-à-dire même baat bi man. Mhm. bëgguma di ko tudd lu bari pour may baat boobu promotion. effectivement man ku ma xam seede naa ko. Ndeye Leila Sow. Mm-hmm. Touba la ñu ne Touba. Mm-hmm. muy yëkki seede man ci sama comportement maa ngi moom ñoo nekk ànd Gàmbi bi. sur mm-hmm. tournée Wally Seck. am benn borom ñaari tour bu fa nekkoon ñëw di ma nuyu si. moom Touba la toog laa wax. di seede ne jour boobu noonu sama comportement ñi toogoon foofu yëpp la yëpp. te kooku ba mu ñëwee jox na ñëpp loxo. bi mu yegsee ci man dama ko dummóoy jóg dem. mu may woo ma ne ko bu ma wooti man seen xeet man du fu ngeen toog du fa toog lu ngeen wax du fa. Mhm. ñi ma xam xam nañ. saa mhm. def yaa a des yoo xam ne du ma ko foowe mhm. man lu tax suma bëgg tukki wala bu ma tukkee ci yenn dëkk yi du ma fa yàgg parce que ñoom xam naa ne dañ fa am doole dañ fa bëri. donc pour pour bañ a tooñ comme l'islam laa gëm <laughs> peut-être dinañ ñëw ci waxtaan bi sur l'histoire des murailles man dama ne bu fekkee da nga am religion nga gëm religion bi. mais sa religion fa mu amee jàmm nekk fa. parce que àdduna liberté lañ nekk. parce que man mi la xam après loolu daf ma jaaxaloon. mais mais xam nga nit bu bëggee yàq. xool xool xamul fu muy jaar. Mhm. mu jël li nga xam ne moom nga gën a moom nga gën a bañ. Mhm. mu jaare fa mhm. pour nee na da lay jéem a toucher da lay jéem a atteindre. <laughs> fekk xamuñu ne cest à man tant que yàlla xam na le reste je man aw ma. surtout ñoom man yàgg naa di ko wax man nit nitu Pastef aw ma compte bu ma koy rendre. Uh-huh. cest à ñoom nañ gëm loolu nañ ko jàpp je m'en fous. parce que uh-huh. considéré wu ma leen ay nit. Uh-huh. xam nga koo considéré wul. c'est-à-dire li muy jàpp ci yow li muy bëgg ci yow li muy namm ci yow lu sa yoon. c'est-à-dire j'ai pas de considération ou de compte à rendre aux gens de franchement te li ma lay wax nii lu dëggu la ci man. cest à nañ ma jàppee dof nañ ma jàppee góor jigéen nañ ma jàppee ku bon nañ ma jàppee je m'en fiche parce que mhm. koo xam ne làmmiñam ñëpp wax nañ ne la mu cay jénne du dégg mhm. kooku li mu lay jàppee ban njariñ la am ci kanamu sunu borom mhm. yàlla nga xam ne fenkat bokk na ci li mu gën a ban ci doomu aadama ku ñu dem ba àdduna yëpp maase ne yéen ay fetkat ke kooku li ñuy wax ci yow yow ban <laughs> importance la war a am donc si samay nopp ci samay bët wax dëgg yàlla seeni wax accordé wu ma ko benn importance nee naa kañ laa nar a dute ne yàlla kenn la jour bu ma déggee waa passé fi ne yàlla kenn jour boobu laay commencé dute ne est ce que yàlla kenn <laughs> nañoo wax dëgg ah. waaw Euh, merci beaucoup ci li nga jot a leeral. Mm-hmm. Euh, ñu dem directement ci actualité bi. Euh, gis nañ jamono jële passé le premier ministre defoon sorti ci ay affaire voile ak yooyu ba démb gis nañ ne le premier le ministre de l'éducation Moustapha Guirassy génnee na arrêté bi buy wax ci règlement intérieur établissement yi ci même jour ñu gis ne am na école boo xamante ne am na ab xale bu jigéen maam dafa muuru woon xëy na ñu convoqué ko am am na si ñu ne euh, dañ ko dàq ndax euh, muuraay bi ak yooyu euh, sujet boobu ban effet lay def Ameth Ndoye c'est man c'est très déplorable mhm. dans la mesure où comme à son habitude nag xam nga Ousmane moom dafa bëgg populisme mhm. c'est-à-dire du sujet boo xam ne dañ ko waroon indi ci place publique bi di ci di ci débattre parce que c'est tellement sensible que mënoon nañ ko régler en interne xool école yi waxtaan ci ak ñoom même su fekkee c'est le ministre qui va se déplacer wala euh, IA yi wala IEF yi je sais pas ñoom ñooy dem. Hmm. ñu ñu waxtaan ak direction yi ñu xool nuñ koy régler pas mu nekk débat sur sur la place publique. parce que ba mu koy wax grand théâtre la ko waxee woon. jour boobu noonu ban sens dafa amoon wax boobu amu foon benn sens. mais moom il veut être le centre du monde tout le temps nit ñi di débattre ci moom di waxtaan ci moom yooyoo ko neex dem alimenter réseaux sociaux yi yooyoo ko neex il vit parti. Mm-hmm. wax bi ñëw na. jur na ay polémique ñun nit ku ñuul d'une manière générale waxuma chrétien ou musulman de. dañoo doy waar. nous sommes provocateurs. tu vas voir cette année-ci beaucoup de provocation allant dans man maa la ko wax. parce que xam nañ ne sujet bi fi mu toll nii laal nañ ko sensible na. par rapport au temps mën na jur polémique mën na di nga ci gis façon xeetu defin bu ne. façon tappale bu ne di nga ko ci gis bu mën a jur coow ak façon saytaane gu nekk. te lépp li ñu ko yóbbee c'est notre premier ministre mënoon na ko éviter ñu waxtaane ko en interne. Mm. waxtaane ko ci suuf ré yañ yi cay jël wala décision yañ ñu jël ñu def ko ci maintenant nag c'est le musulman qui parle. Mm-hmm. ñun jullit yi ñun. Mm-hmm. bu ñu bëggee suñuy doom yor éducation islamique dañ leen di yóbbu ca école ya méngoog islam. Mm-hmm. c'est contradictoire Thierno Malick ne moom dafa bëgg doomam di muuru. di roy soxna Khadija wala maam Jaara wala Ummu Kalsum suñu maam Alaaji Malick. mu jël ko yóbbu ko école catholique. Mhm. saa waay nit da ngay cohérent mu ngi mel ni ab chrétien bëgg doomam mokkal bible mu jël ko yóbbu ko daara dina mën bible. Mhm. soyons cohérent ñi bëgg seen doom yor jikkoy jullit am éducation islamique nañ ko yóbbu ca école islamique yi c'est tellement simple pour man loolu warul am polémique wax dëgg yàlla. Mhm. parents yi ñoo wara a rek rek. voilà naa nag damaa bëgg sama doom mel ni jullit yor jikkoy jullit ñu yar ko yaru jullit nga yóbbu ko foo xam ne yaru jullit amu fa bëgg nag imposer yow say loi wu jullit ca école jàmbur ah ça devient compliqué day nuroog jaay doole te warul demee noonu nag. waaw mais foofu aussi dafa am euh, sew sew. mooy sew sew bi xam nga bu constitution bi euh, féetee kaw règlement intére école bi. constitution bi ne ñëpp ñoom ñoo war a yem. non Thierno <laughs> ñoom ñëpp ñoo war a yem. j'ai bien précisé non xaaral xam nga bi may wax waxuma citoyen. <laughs> waaw non dégg naa la léegi waxal j'ai dit le musulman. waaw léegi en tant que citoyen bi waxu constitution bi nañ ko fi teg mhm. parce que constitution bi moo ne woon premier ministre na dem defi DPG te dem defu ko. Mhm. constitution bi moom. Mhm. saa yi ak ñii gisuma valeur bu mu amati. barki de mboo Ndiaye la leen wax dem leen defi DPG defuñu ko. bërki dem boo njaay signature président de la république constitution moo ko tënk may ko mm-hmm. doole mu def ko fi wax ne le douze xaw ma le treize dina dem mujjul dem mm-hmm. ñu mujjee tas assemblée bi donc ñoom constitution bi saa yu leen arrangé rek lañ koy utiliser mm-hmm. cette fois-ci sur cette question là man bëgguma ci waxee droit ou loi ou quoi que ce soit li ma bëgg ñu analyser xam mooy la socialement lim ñu mën a yàqal parce que constitution nag ak doole bu mu mënti am jàmm moo ko ëpp doole moo ko ëpp njariñ ci réew am na loo xamante ne jàmmi réew mi moo ko ëpp solo nañ ko gérer socialement avec intelligence ku nekk la nga yéene ak la nga bëgg sa doom mhm. yóbbu ko fa mu méngoog sa diine que ça le chrétien ou le musulman mhm. man mënuma comprendre nga bëgg sa doom méngoog <laughs> jikkoy jullit wala méngoog jikkoy kat mhm. nga yóbbu ko école bu contraire ak sa religion si je peux le dire comme sax nañ man dama bëgg rek ñuy waxante dëgg su fekkoon ni tey jii un chrétien moo yóbbu doomam ca daara ja mu meesu sol sol mini sëriñ bi daax ko wala nangam ak nangam gëw ma ne coow li dina am. Mhm. soyons conséquents nag ñu ñu ñu daal. Mhm. te yàlla rek tax. Mhm. waaw kon daal yow noonu nga jàppee ne maanaam buñ dowalee xel mu màcc rek coow warul woon am ci lii. mais bëgguma mais ana ana <laughs> Thierno ana doomu jullit dem di jàng ecole catholique te yaayam ne moom dafa bëgg mu mu yor jikkoy jullit wala ana doomu catholique dem di jàngee école jullit te papaam ak yaayam bëgg ne dañoo bëgg mu yor éducation Christ Christa. Euh, euh, euh, christianisme waaw <laughs> christianisme. est-ce que loolu loolu loolu maanaam xel nangu na donc lii lañ bëgg a werante ci réew mi ku ne yóbbul sa doom fa nga jàpp ne moo méngoog moom ak éducation bi nga ko mhm. bëggal. pour que débat bi jeex. Mhm. waaw man daal pour man ki yóbbu doomam feneen bëgg fa imposer loi wu religion. Mhm. te foofu du du jàng du école religion. pour man koo tooñ. Mhm. loolu sama xalaat la en tant que jullit noonu laay mhm. àttee affaire euh, ñu jàll ci ci ci beneen question. Mhm. Euh, Bassirou Diomaye Faye bañ koy tabbee mu nekk président de la république ak léegi daanaka def na euh, six mois. si six mois yi comme ni nga ko waxee gis ñu déclaration politique général avant six mois yi doon nañ dégg la projet Pastef projet Pastef mais finalement waxoon nañ ñu septembre sax projet bi dina mais là mën nañ jàpp ne le 14 septembre nag enfin le fameux projet. Euh, Maodo Malick dama lay waxaat ci ñi nga xam ne ñooy Pastef waaw mais cette fois ci ñu def lancement. non wane ne la 14 non barki Demba Ndiaye lancé grand théâtre ba daje fa après théâtre lañ fa teg théâtre boo xam ne ay géwél toog di naan Ousmane ak a baax Ousmane ak a maandu Ousmane a jullite Ousmane a gën ci Sénégal moo gën ci Afrique loo xam ne 10 ans ñu ngi ñu koy wax. Mhm. Euh, am na lu ma waxoon benn jour ci plateau nee naa leen garaawaayu Ousmane. Mhm. bu tolloon ni immeuble garaawaayam. Mhm. wax ngeen ba mu wàcc ni garaawaay. amatul benn valeur léegi nag li ngeen di fexe mooy garaawaayam ñu utiliser ko ba mu amal njariñ Sénégal mais Ousmane daa garaaw moom wax dëgg yàlla on en a assez entendu quoi. Mhm. nañ ñu léegi garaawaayam nañ ko transformer en pour mu amal njariñ askan wi courant beeg je beeg tuuliñ beeg yooyu. maintenant ci question projet bi dama lay wax. mais mais grave bi aussi kenn du ko remettre que ku mun a joxoñ ne fal leen Bassirou Diomaye gars yi dem ko ku mun a ne def leen Ahmed Aïdara maire Guédiawaye gars yi def ko ku ne def leen diw député gars yi def ko te coow amul dara amul donc bu ñu nee dafa garaaw donc garaaw na. ok bugguma bugguma di di wax souvent ci performance politique bu président Macky Sall parce que day nuru ne dama kaa faral te musuma kaa voté encore une fois je précise mais il faut que ma def ko tey pour gars yi. mais tuddaguma Macky Sall de. Sonko non non man ma waaw man la bëgg wax performance su Macky Sall ak bu Sonko après nga comparé. dañoo gën a rëy làmmiñ rek. Mhm. ñee tamit côté communication dañoo cuune. waa Benno mhm. moom seen cuune ci wàllum communication moo leen yóbbee li ñu nekk. Mhm. le président Macky Sall 2008 lañ créé APR. au mhm. 2009 su ma juumee mhm. c'est-à-dire quatre ans plus ou moins. Mhm. ñu jël nguur gi ñii dix ans lañ def doog a jël nguur gi nañ comparé de benn par benn. le président Macky Sall pendant douze ans su Bennoo Bokk Yaakaar regroupé plus de centaines de partis. moom moo doon toog fi muy toog bureau ne Thierno Malick dëkk nangam diw dëkk nangam diw dëkk nangam diw dëkk nangam moo daan defar liste locale yi. législative yi départementale yi yëpp moo ko daan defar ñuy gagné. dëgg la wala dëgg. 2007 mm-hmm. su Wade le président Macky Sall moom moo ne Wade def ma directeur de campagne. Mm-hmm. bu la neexee nga tëdd nelaw je vais les élections au premier tour dama lay éliraat président de la République du Sénégal. Mm-hmm. da ko def. kon fal na président fal na ay député fal na ay maire une fois plusieurs fois la ko def. pour la première fois mu dem élection ñàkk. APR bañ ko créé ba jon yàlla bi ñuy wàcc élection bi ñu njëkk ñàkk moo nekk keroog su amul nañ ma wax amul. mooy présidentielle bi jàll. Pastef. dañ mhm. ko falee ba yoon yàlla tey élection bu mu njëkk a mooy bii passé <laughs> léegi ñu bëgg maa ne kii dafa garaaw garaaw bi lan la lan <laughs> c'est-à-dire nit ñi <laughs> ëpp làmmiñ ak nappaate moo fi ne. Mhm. dañoo mën a nappe seeni làmmiñ ñu roy. Mhm. mais du ñu dara historiquement parlant defuñu fi lu fi kenn mësta def du ñu tus. man yàgg naa ko wax. te man dama koy démontrer man je parle des faits maître Abdoulaye Wade yàgg naa ko wax en 98 99 bi muy wàcc fi aéroport Léopold Sédar Senghor li ko toppoon ci mbooloo. Mhm. Idrissa Seck l' affaire chantier de Thiès keroog ba mhm. muy jóge Thiès euh, jaar buntu université di dem di wuy ji. Mhm. li ko toppoon ci mbooloo. xam nga 98 ñaata lañu woon population Sénégal. moins de 9 millions. là nous sommes 18 millions. vous voyez la différence. plus de 10 millions de différence ou presque. léegi fii nga xam ne 18 millions d'habitants lañ bu ñu toppee nit bu ñu ci jëlee benn portion ñu topp nit. Mhm. mais logique la mu mel ne bu lu tolloog lu Ablaye Wade. Mhm. mais fichier wu Sénégal euh, en 98 euh, élection 2000 xamoon nañ ñaata nit a ci nekkoon. <laughs> fichier bi du ko triplé. Uh-huh. mais c'est normal. ma me dites 54 pour cent 54 pour cent mais Macky Sall a fait 58 pour cent. Mhm. mais qu'ils arrêtent. lan moo ci extraordinaire. luñ fi def lu kenn mës def historiquement ci politique amu fi dañ loolu dañ koy wax ñi nga xam ne jàpp nañ ne histoire u Sénégal mu ngi commencé 2014 bi Pastef xewee mhm. man duñ ma ko wax man damaa yàgg suivre politique yàgg suivre histoire politique du mhm. Sénégal maintenant nag revenons si seen projet bi mhm. ma wax la lii nga jàpp ko luy nitu Pastef nitu Pastef da lay dig ndékki jël kafe gi di ci meew ba sa xel di dute léegi nag boo ci nangoo xaar añ sa problème la xaw ma ndax dégg nga ma. non dégguñu la de. ma ne nitu ah. da lay dig ndékki. Mm-hmm. jël café gi di ci meew ba sa xel miy dute <laughs> nga toog di xaar añ. Mm-hmm. te gis dara. man nag du ma nangoo bokk ci ñooñu. Mm-hmm. ñi ñuy duteloo seen xel. <laughs> xam nga ndax dégg nga ak meew ak dutee dégg naa bu baax. loolooy nitu Pastef. mais daal xam nga day nuru ndékki li ma la wax ni nuru na ndékki ba léegi. waaw yow daal su ma déggee yow gëmoo ne projet am na. mais attends pendant plus de huit ans. projet bi projet bi nañ défendre projet bi nañ xeex pour projet bi nañ def nii projet bi projet bi protéger leen ko du man projet bi projet ba nga toog conseil des ministres lañ njëkk a jénn communiqué ne décembre nit ñi hmm. attaqué leen décembre projet kon amu fi woon li ñu doon wax yëpp mu dem Grand Théâtre septembre wax yuy dañ nga xam ne ñoo ma ci doy léegi septembre ñu joxewaat ab dab bu bees léegi man lan moo tax ma koy gëm mooy li ma la wax nga dig ma ndékki gisuma añ bi gisuma nga ne ma reer may toog di gëm reer boo indee reer kañ ma sukk waaye gëw ma ne reer am dinaa dem taxaw buntu may ko ba dégg ñu woote reer gëw ma seen i wax. Hmm. dara laa gëmul seen wax. ndax dem damay seetaan euh, Tafsir Coy. PDS en ancien PDS comme hmm. dañ ko dàkk <laughs> mu ne mu ne ñu laaj ko ci projet bi mu ne bon. moom gëmul ne projet am na. Hmm. parce que li muy gis ñu koy véhiculer du du du projet quoi programme gese la. non mais effectivement am na ñoo xam ne xàmmeewuñu programme ak projet parce que parfois da nga leen an seen projet ñu génne seen livre boobu ñu tuddee projet te li ci nekk programme la. Mhm. c'est compliqué. Mhm. te un programme tu peux l'appeler li livre mhm. soo ci duggee c'est un programme. maintenant ku am projet. def DPG na war na la të. en principe non. n'est-ce pas du projet bi nga war a ñëw expliquer. donc amuñu projet moo tax def DPG tële. mais DPG bi est-ce que du aussi da doon xaar am majorité assemblée pour def ko. non ba tey si seen lay la bokk lu ñu waxoon règlement intérieur bi. waaw ñu modifié ko. Mhm. ni ñu ko modifié ñu waxaat lan jàpp dat. Mhm. ñu jàppaat dat ñu waxaat lan demaat seen yoon indiwaat ay problèmes yu kenn xamul. Mhm. Euh, bu fekkee da ngaa wóolu sa bopp comme ni ñu koy waxee ñoom. moo fi ëpp xam-xam moo fi gën a jub moo fi gën a wóor moo fi dàq politique comme ni ñu koy waxee ñoom te du dëgg nag. jàll seen kaw dem warulaa jafe. Mhm. où est le problème même bu fekkee benn nit nga fa am wala assemblée bi kenn faralu la fa mais bu fekkee sa xam-xam yow naw nga ko sa programme maîtriser nga ko sa projet nand nga ko mais ñëw jàkkaarloog ñoom exposé ko ban problème moo ci am saay man li nga xam ne maa ko xalaat war ko bind war ko doxal yóbbu ma ci diggu sama noon yi gën a mag ci àdduna ma développé ko. waaw mais xam nga. xam nga lan moo waroon nekk yitteem. Mhm. projet bi bu fekkee man maa ko moom gëm ko mën ko mhm. xam ko mooy ñooñu ma ñëw wax ba ñu mujj farak man waaw mais Moustapha Ba lu mu fi defoon mhm. ministre finance mhm. ba mu ñëwee assemblée convaincre wul ñëpp effectivement waaw bu fekkee dangaa am xam-xam wóolu sa xam-xam noonu ngay doxe say diggu noon ngay ñëw ne man bu ma fa demee tey bu ma fay jénn samay noonu ñu bëri wala du ma fa amati noon nga wax ba convaincre leen parce que li ngay wax da nga ko maîtriser da nga ko xam waaye fa nekk du ma daw loolu ku wóoruwul xam-xam ak ku nawul boppam moo koy def mais euh, tey euh, gis nañ euh, Ousmane Sonko jamono jële mu génn def conférence de presse amul lu mu accusé wul ancien régime bu fi nekkoon bu Macky Sall dem na ba ne sax le régime de Macky Sall dañu fen daanaka dañu fen sénégalais yi mu ne falsification chiffres yi problème FMI tout ça mu évoqué ko. yow waxoon ne aussi réew mi dafa nekk état en ruine. Mm-hmm. soo déggee kàddu yooyu yëpp ak réew mi fi mu toll nii est-ce que doo am ay doute ci réew mi. waaw xam nga euh, Thierno réew moo xam ne dafa nekk en ruine wax naa ko waxti ko. Mhm. réew moomu naka la mënee def lii muy def yëpp. cest di dire activités yi ñu war a def yëpp gouvernement bi ñu ngi koy def. Mhm. fi ñu war a dem ñu ngi fay dem li ñu war a def ñu ngi koy def léegi maintenant réew moomu naka la mën a nekkee en ruine rien que ça. c'est-à-dire déggagoo ñu ne war nañoo voyager président bi amul kérosène. Mhm. kenn wax ko. premier ministre bi war na def convoi am dem Touba amul lu mu fa yóbbu amul carburant kenn dégg ko. Mhm. kenn déggagul ñu ne fonctionnaire yi fayuñu leen. kenn déggul ñu ne seen per diem ak seen i commission yi ñu war a jot ci voyage bu nekk jotuñu ko kenn déggagul. Mhm. ça veut dire que le pays est en marche quand léegi nag fu ñu ko jëmee <laughs> mooy ñu indiwaat ci DPG bi loolu lañ xamul. ça c'est un beneen bi mooy damay damay damay génne chiffres yi parce que bugguma mhm. bugguma juum tey euh, la benn yéenekaay xëy wax li nga xam ne moom lañ namm ci euh, Ziguinchor mhm. def fa des centaines de milliards répartir ko en deux parties ci année deux mille vingt quatre bi mhm. mois yi ci des ak année deux mille vingt cinq waa dëkk bu nekk en réunion mën na lool pour une seule <laughs> région non xam nga xam nga caaxaan baaxul. Mhm. ba pare wax dañuy wax ba waat seen bopp. Mhm. man si c'est ça que l'habitude de dire malheureusement gisuma ko mais euh, si montage bu leen neexee ngeen wër ko y a journal bu jënn wax ko. Mhm. avec des chiffres précis. et puis ñu koy bàkkoo fàtte ne ñoom dañoo waxoon ne nous sommes en ruine. fàtte ne dañoo waxoon ne réew mi amatul xaalis. léegi nag euh, loolu nit yu mel noonu man mënuma ci dara. li ma la bëgg a daanelee daal mooy en tou cas. depuis plus de dix ans waxuñu ñu lu bees. Thierno mhm. ñaata yoon nga dégg Macky Sall sàcc la Macky fenkat la ak ñi mu àndal. Mm-hmm. loolu Ousmane Sonko waxaat ñu ko lu ci bees. Mm-hmm. ñun ñu ko doon xaar sur les questions d'urgence yi ñu war a taxaw régler ko. waaw ñu war ko régler xam nga tey dafa am lu grave bu demee ba ne dañu falsifier ay chiffres xaaral ma ñëw loolu dañuy wan ne lim ñu wanaat keroog mooy que ba léegi suñu justice bi li ñu doon jooy ne moom moom boppam amagul. Mhm. logiquement loolu non corps de contrôle yi ñoo war a jénn wax ko. Mhm. bu ñu jénnee wax ko justice jàpp leen def liggéeyam. un premier ministre pour man loolu waru see sax dugal làmmiñam mhm. pour pour rek justifier l'indépendance de la justice. à sa place ou étant un de ses conseillers matuma ko peut-être. dinaa ne ko monsieur le ministre. jénneel lii sa gémmiñ ak sa làmmiñ corps de contrôle yi nañ ko contrôler su amee justice def liggéeyam point barre mais comme li ma la wax. lajj nañ amuñu pexe ci situation yi taxaw ak obstacle yi ñu bëgg a jafandu rek satisfaire seeni seeni seeni militant ak faire encore et encore du populisme taxawaat di ñu wax diw sàcc la diw nii la diw naa loolu wax ngeen ñu ko ay est-ce que si jubanti moo xaw a metti nag est dafa jar wax nañ leen jàpp mais qu'il pourrisse en prison <laughs> sama <laughs> lekkuma ci naanuma ci faruma ñoom mais mais réew mi fi mu toll ñu war a taxaw. Mhm. tout le temps sur l' éternel débat waa APR sàcc lañ waa APR lu ñu nit yu baax waa APR jubuñu waa APR lu ñu wax jusqu'à quand mais faut qu'on avance loolu depuis plus de dix ans yaa ngi ñu koy wax donc avancez cher monsieur donc jàpp leen bu fekkee jàpp leen mooy tax nga dem liggéeyi wàññi ceeb beeg duuliñ bi ak woyofal bi mais vas-y jàpp leen man je content. <laughs> jàpp moom du ma ci kontaan kenn mais bu fekkee loolooy tax nga jublu ci liggéey. mais faites ça et arrête de nous tétaniser ak waa affaire ay. lan ngay xaar si ñoom tey. ñu wax ñu dëgg. Mhm. cest à man lu ma yàgg a ci état yëpp nag wax dëgg mhm. yàlla. waxuma dañuy fen mais ki nous disent jamais la vérité en face. Mhm. dund gi ñun ñëpp xam nañ ne wàññeekul. bëlëfe nañ ñu jénn fi def seeni affaire delluwaat toog ñëpp xam nañ ne courant bi yokk na. tey exécuter le chargé ou la chargée de comme ou je ne sais pas ndooy la sant sax. Mhm. sama mbokk la muy expliquer mais li mu doon mhm. expliquer da ngay xam ne sax li taxawul. Mhm. que woyofal bi yokku na. kenn du di saa yokku na on se prépare en conséquence mu ñël leen ñu ñu liggéey xel mën na ko nangu mais bëgg ñu bëlëfe ne yéen a ngi wàññi yéen a ngi liggéey yéen a ngi def ay exploit ci lan gis nga nguur. moo jarul xam-xam bu bari pour évaluer ko lu bët di tegu la. ceeb bi bu wàññee ko boo demee boutique ba booy jënd di ko yëg mais mm-hmm. bu wàññee ko bu ma demee boutique ba bu may jënd dinaa ko yëg jarul wax ju bari au moment de euh, de fair faire le bilan c'est-à-dire fi nga romb di démb gisoon nu mu mel boo fa rombaatee suba di nga xam ne changement am na léegi nguur gi liggéey na wala maire bi liggéey na mm-hmm. jarul wax ju bari lu visible la nee naa moom ak suñu métier bi ñooyam boo ci yoree ab employé fii biir Dakar Média TV mm-hmm. liggéey na am liggéeyul demal ci seen YouTube bi jarul wax ju <laughs> maa gën a garaaw cernoog maa yore kër geeg bu dul woon man kër gi diig cest à sur la chaîne là loo fa monté. Mhm. loo fa réalisé wala loo fa présenté. <laughs> lépp a ngi fa. <laughs> lépp a ngi fa c'est des données précises. Mhm. léegi nag ñoom li ñu bëgg a jàppoo affaire bi mooy continuer di wax. saa mhm. yi lekkatu kese naxuti bay man ngaa wax bañ jox la. waaye wax bii du sax. il faut ñu dem sur des actions concrètes faire du concret wax nit ñi dëgg étape bu ñu tool pétrole bi boobu ak léegi bi ñu bi ñu waxee ne jot nañ première euh, production yi. Mhm. fu ñu ci toll loo ci déggaat parce que dafa nekkoon seen arme de guerre contre le président Macky Sall. Mhm. waaw fu ñu ci toll loo ci xamaat <laughs> loo ci yëgaat te pourtant taxawul de. Mhm. mais ñemewuñu cee communiquer. ak yeneen lan nga xam fi mu toll nii lan rek nga xam sur les questions yi ñu doon campagner sur les législatives lan lañu ci namm. la criminalisation de l'homosexualité luñ ci nam xëy na bu ñu amee majorité assemblée. non non da koy wax ci campagne bi mu leer nañ ko wax nañ ko wax na Ousmane Sonko défier naa ko moom mooy tête de liste bi. Mhm. taxaw publiquement mu wax ne ñun man su ma gañee dañuy criminaliser homosexualité na ko wax na ko wax. da nga jàpp dafa am lu mu ci ragal. non non na ko wax dama ko défier na ko wax na ko wax ñëpp dégg. na en français et en wolof nag. Mhm. man na ko wax en français et en wolof ñëpp dégg. Mhm. bu ñu fàtte ne bañ ko yóbbulee pour mu signer dafa signer dafa waxoon sous réserve de. Mhm. ak yi fi xew yëpp. Mélenchon ak yeneen ak yeneen yeneen na taxaw publiquement mu wax ko. toléré wuñu ko fi dañ ne dañ koy criminaliser na taxaw wax ko. gis nañu bàyyi di lëre population bi nañu bàyyi di nax population bi nañu bàyyi populisme bi dëgg mooy njëkk moom mooy mujj. comme ni ko gars yi waxee mën naa jël escalier yi nag yéex lool. Mhm. fen jël ascenseur bi jiitu ko waaye <laughs> yàgg yàgg dina yegg te bu yegsee fen dandu. Mhm. donc mieux vaut tard que balaa ñuy àgg nag sa cappaandaw gu muy gën a métti ci ñoom nañu wax sénégalais yi dëgg buñ leen muñal muñal leen ci ànd ceeg ñoom. Mhm. bu ñuy seeti leneen ñu seeti leneen. mais wax leen dëgg daal pour man loolu bokk na ci li manqué woon diggante gouvernant yi ak peuple sénégalais bi. loolu jàpp naa ne ñoom bokk nañ ci jeunes yi nga xamante ne nekk tey au devant dañ ko war a tabaxaat. man xam nga ñu wax la réalité xam nga lan moom xaw a jaaxal tuuti. Mm-hmm. mooy euh, ñu for ñu nekk ci benn boor dañu naan euh, ñii duñ wax dëgg mais ñoom ku ci génn tey ba ci démb sax la ministre El Malick Ndiaye ba mu ci génnee di wax sax nee na ñoom lépp lu ñu leen di wax dëgg la lépp lu ñuy wax askan wi dëgg la parce que nee na mënoon nañ ñëw sax tàmbalee liggéey. Euh, mu ngi mel ne oto boo xamante ne comme exemple bi nu mu ko joxee maam oto boo xamante amul frein clients yi yéeg ba pare am ñu ne nañ dawal oto bi rek ñoom dañu ñoom Pastef dañu taxaw ne déedéet nañu wax askan oto bi amul frain nañ defar frein ba pare doog a yabaat gars yi moom misaal boobu la jox pour wane ne ñoom lépp lu ñuy wax digga ñoom seen diggante ak askan wi c'est la vérité donc tey bu nekkee yow gëmoo loolu keneen ak keneen gëmul loolu tamit gisoo ne ça pose problème. Euh, léegi na li xewoon ci màggal bi par rapport ak bis yi Dakar dem dikk pour ñëw ci moom li mu géré. Mhm. dik ko askan wi mu indi pëcc xoogu métti. Mhm. ak rayanteeg buuxante. difficulté la mu mujjee jural askan wi loolu dégg nga leen ñu wax si. waaw ah boobu manque d'expérience la woon rek xam naa ne année beneen après day jéem a def le bilan wax ak nit ñi. loolooy mhm. wax dëgg. mës ngaa dégg kuy taxaw naan gars yi. allo allo fëgg micro bi damay fen mën nga koo dégg. déedéet <laughs> yow kii sax daa gëm ne dëgg lay wax <laughs> toog naan ñu lu ñu leen ma sax wax dëgg la loolu bett ma yow loo doon xaar le contraire li ñu leen doon wax yëpp dañuy fen <laughs> la ko wax. Hmm. sàcc bi même bu demee kaso ba mu leen ñëpp moo sàcc day taxaw di miim na sàcc ma mais wax dëgg yàlla ñun xam nañ luñ ku ñuy wax dëgg ak ku ñu waxul dëgg nañ jéem ñu wax askan wi dëgg bi y a beaucoup yoo xamante ne bu soulevé wu coow dina am entre nag wax dëgg ak fen am na lu ci wuute. li ci mhm. wuute mooy par exemple ci accord bi ñuy topp naan dañoo am accord ak le président Macky Sall dañ koo am. Mhm. xam nga fenuñu ci. Mhm. parce que ba léegi jéem ñu wax ci dara. mais wax ñu ci dëgg mooy jéem wax ñu. wax ñu lan mooy accord bi. <laughs> xam ndax comme naan nga bu baax. xam nga mën nga ma wax ni. nit man na ma woo léegi. ne ma ndax yaa ngi Dakar Media TV. ma ne ko am na fu ma nekk nii. naa la rappeler est-ce que damaa fen déedéet waaye waxuma ko dëgg bi de. Mm-hmm. parce que li mu bëggoon a xam ndax Dakar Media TV laa nekk waaw wala déet. Mm-hmm. waaw loolooy différence nañ ñu wax accord yi ñoom ak le président Macky Sall lan la. Mm-hmm. parce que nangu nañ ne waxtaan am na bi ñuy doog jénn kaso. mais waxtaan bi lan la. les tenants et les aboutissants lan la lan lañ juboo ba président nangu leen a jénne parce que kañ nañ ñu ciy wax dara yooyu laa tuddee wax dëgg askan wi wax leen li xew réellement lan la parce que dañu doon wax ne du ñu mës a waxtaan. après ñu waxtaan. gis nañ ne ñoom dañu jóge prison. daanaka ñëw jël nguur gi. Mm-hmm. Euh, liñ fi njëkkal a ci liggéey boo xamante ne c'est visible mooy assises de la justice bu ñu defoon. Euh, gis nañ euh, récemment des arrestations et des convocations mu ngi mel ne maanaam li fi woon jógu fi maanaam li Macky Sall jeexalee woon. Mm-hmm. ñoom ci noonu lañ tàmbalee. Mm-hmm. non non Macky Sall sax commencé woon na ko à un ma donné. le président Macky bokk na man ci li ma jàpp ne. moo gën a retardé bilan am ba objectif yi mu amoon yëpp matalew ko. Mhm. traque yi mu xeela yi mu xewaloon les poursuites contre les Karim dañ ci jël temps bu bëri perte ci énergie bu bëri. Mhm. sont en de fair le même erreurs. ji nga justice bi boo ne daal libre bàyyi kook lépp. Mhm. yow la politique nga dem nga defi say action sur le terrain jéem a satisfaire bëgg-bëggu Sénégalais yi pour gagner du temps mais yow boo ci bëggee nekk. bëgg cee def sa fayantoo. Mhm. say réglement de compte da ngay tardé doo liggéey au moment du bilan xanaa duñ fi taxaw naan jàpp nañ diw ñoo jàppoon baa jaxate <laughs> ñoo jàppoon diw ñoo jàppoon diw bilan baay noonu te boobu léegi lu ñëw sax ñoom bilan wu jàmbur ñu jël ko aagi ah moo ko ne ñoom ñoo ko fi def mhm. <laughs> sañ nañoo taxaw sax ne BRT bi ñoom la am nañ fi tam mais nag quand gis nañ loo xamante ne nii nit ñi dañ ko soxla ñu war ci dem taxaw mhm. TER bi wax dëgg yàlla ay la yéwén satisfaction totale la woon bijou la bu ñu demee ba tey terre bi ñu lay wax ne dafa ñàkk climatisation ba ay nit di xëm ci biir. Mhm. c'est extrêmement grave. recul bu garaaw la en six mois. six mhm. mois. parce que loolu loolu problème de de entretien la problème de maintenance. dafa am lu xew te ñemewuñu ko wax. mooy lan. dafa am partie boo xam ne ci terre bi câble yi dañ ko daggoon. Mhm. ci jamonoy manifestation yi. loolu moo indi désagrément bi mais nanguwuñu koo wax ci kaw parce que ñan ñoo ko doon dagg bi ñuy manifester. loolu lañ bëggul dem dañuy traquer. dañuy jub dañuy jubal dañuy jubbanti ñu indil teer bi situation bi anañu duñ leen wari loolooy dëggu gis nga nit mën naa dëggu cerno te du dëggu ci bopp euh, mën naa ñime dëgg te du dëggu mm-hmm. dëggu mooy commencé ko sa bopp mm-hmm. cest à ak yow sa bopp ba nga xamante ne li ngay woote da nga koy njëkk ci sa bopp loolooy dëggu mais nag kaay leen ma wax leen dëgg kaay leen ma def leen nii te li nekk sa wet nga gis ko xam ne ay dëng-dëng la jéemoo ci dara loolu du jub jubal du jubbanti Mm-hmm. léegi ban appréciation nga def ci justice bi ci six mois. <laughs> mais Ousmane defal nañu bilan bi moo taxaw nañu waa ji moom la woo di ko laaj <laughs> lan la ciy def <laughs> loolu ça veut tout dire ça tout dire quand un premier ministre taxaw naan semaine bii dinañ ko commencé dinañ tal leneen donc moom àtte na ba jàpp c'est le premier ministre qui parle moo wax loolu ça veut tout dire que li fi nekkoon jógu fii son waa kër gi. <laughs> li fi nekkoon gis nañ ko mel ne commissaire Kayita euh, wax ne ñaar ñi dañ doon xeex ñu jàpp ko tëj. El Malick dañ ko war a jàpp justement parce que démb dégg naa mu naan am na ñaari kilifa yoo xam ne ba ñuy investir sax dañ doon xeex pour seen liste parce que le ñaar ñaari kilifa dañ doon xeex la wax ñu jàpp ko. Mhm. El dañ ko jàpp. comme justice bi dafa tëddee jaaxaana <laughs> justice bu libre la jàpp dañ ko jàpp c'est-à-dire vous imaginez dama la bëgg a wax ne même ñaari nit dañ doon xeex quoi c'est-à-dire loolu. maanaam bu ñu ñëwee laaj leen commissaire Keita lu tax ñu jàpp ko. Mhm. ñaari nit dañ doon xeex la wax quoi. mais génn ne ko xeexuñu <laughs> c'est tellement simple. Mhm. mais imaginez lii mag bu toll ni commissaire Keita. ak li mu servir Sénégal yëpp. commissaire Keita c'est-à-dire imaginez un commissaire bu nekk ci beneen dëkk ci àdduna bi les pays développés nga ne ko yaa un commissaire sénégalais bu ñu jàpp ci kaso bi mag la il est malade de surcroît mu ngi ci kaso bi actuellement parce que dañ dafa am ñaari kilifa yi doon xeex c'est-à-dire lañ ko jàppee quoi c'est-à-dire vous imaginez loolu nga war ko raconter un commissaire français ou américain mm-hmm. ma sax commissaire un shérif américain c'est catastrophique niveau bi ñu yóbbu affaire bi et c'est inhumain mm-hmm. commissaire Keïta âge bi mu am feebar yi mu yor nga jàpp te ba léegi li ma ci neex nag lenn la yuuxuwul jooyul tappalewul feebar feebar feebarluwul <laughs> xam fii jàpp nañ fi nit muy yuuxu di woo jibeeku waale <laughs> dem sebi ko taan ne daa feebar créé fi perfusion bu kenn mësta gis ci àdduna mm-hmm. mais commissaire Kaysa bravo ba léegi kenn dégg ko mu jooy wala mu yox yoxi loolay mm-hmm. jàmbaar loolay góor mais nañ ci dawal yërmande ak humanisme tuuti ñu xam ne yenn yi dara àdduna jaru ko Macky Sall 12 ans la fi def 12 ans yi bi muy commencé bi muy jeex comme nii donc nañ xam ne lépp dafay jeex comme j'ai l'habitude de le dire nguur moom ñaari jeexantal li lii soit ñu folli la soit nga dee. Mm-hmm. récemment aussi gis nañ des convocations ba ay garde à am ci ku ci mel ne Cheikh Yérim Seck Bougane Gueye Dany ak Kader bu nekk Sen TV mais finalement après ñu bàyyi leen ñu dem. non te ñoom dañu démentir ay chiffres. waaw man de nee naa ci àdduna man maa ngi doog a gis nit bu taxaw ne chiffres yi dañ koo falsifié woowuñu ko laaj ko preuve ki taxaw ne chiffres yi lim ci wax amul ñu ne kooku na indi preuve. vous imaginez c'est-à-dire man ma ne Thierno yow sàcc nga yaa sàcc micro Dakar Média TV yow nga jénn ne sàccoo ñu convoqué la yow ne nga indi preuve non ñi ñu wax ne ñoo sàcc ñoom waxuñu de ñeneen a leen wax waaw non non foofu laay waxee non non par exemple keneen jénn boog ne Thierno sàccu kooku ñu woo ko ne ko pour mu indi preuve ci li mu wax ne Thierno sàcc ma yaakaar ne man lañ war a woo man ma indi preuve ci li ma wax ne Thierno da koo sàcc logique quoi mm-hmm. lu jaadu ak lu pragmatique mais man su ma indee preuve nag ci li Thierno sàcc bañ joxoñ ko nag suite logique bi ñu woo ki ne woon Thierno sàccul ñu ne ko hmm. ah Ahmed da jënd na preuve lu Thierno sàcc yow an say preuve yi taxoon nga wax ne Thierno sàccul bu boobaa contradiction mën a am mais man mi ci ñaate kenn woowuma kenn laajuma preuve ki weddi ñu koy woo di ko laaj preuve mu koy jëlee ki ci hmm. ñaate mooy indi preuve di mais j'ai rien compris maintenant nag xaw ma heureusement ou pas deltu nañ ci ginnaaw ñoo xam li tax ñu dellu ci ginnaaw en tout cas organism yu bëri sur le plan international hmm. jógoon nañ commencé woon alerte surtout sur le cas de Cheikh Yérim. Mm-hmm. c' est des gens yoo xam ne ay Madiambal Diagne ay Cheikh Yérim Seck wallaay bu ma sañoon ñu bàyyi leen mm-hmm. <laughs> ñu continuer di wax ndax kenn mënu a tere wax sama classe gi nga xam ne ay wëndëng lañ tekki yu ñu dara nag ci àdduna bi. Mm-hmm. mën nga leen def lu leen neex peut-être Sénégal mujj ci jàmm wala am ci la ka neex. mais ñooñu moom euh, il faut nga bàyyi leen ak seen liberté d'expression. bés bu ñu jalgatee nag fi. a Euh, bëgg tukki wala bëgg a génn réew mi dañuy jël seen valise dem ba aéroport finalement ñu rebrousser waat chemin parce que dañ leen tere tukki euh, xaw ma ba xam yow bokk nga ci list bi wala bokkoo ci euh, ndax gis nañ récemment Madiambal musul musul yor dara réew mi dem na ñu ne ko doo dem mu dellu si mu ñibbisi <laughs> man de bu ñu ma teree jënd ba wax dëgg yàlla teree jënd ko amul benn solo <laughs> samay jënd amul solo sama toog amul solo. mais mesure boobu te amul benn décision de justice. mesure boobu tey nan nga li ma la doon wax ci justice bi déjà. Mhm. cuune xam nga fan la commencé. Mhm. y a une base de données quand même buy wax ñun ñoo yore des passeports diplomatiques. Mhm. comment un état. mais est-ce que affaire yi demul woon ba jaxasoo tamit. non non non non c'est impossible. y a une base de données ministre de l'intérieur da koy yor. les services aéroportuaires ba mënul vérifier ñan ñoo ko yor loolu benn la. Mhm. beneen bi mooy c'est un document administratif. buñ la mhm. koy jox y a yooyu signé mu accompagner ko. suñ la koy delloo aussi dañ la koy notifier nga ñëw delloo si ko. Mhm. c'est pas aéroport lañ koy nangoo. kan moo habilité aéroport pour récupérer foofu passeport diplomatique quand même <laughs> soyons sérieux donc nag mais avec ces gens là tout est possible. c'est l'état <laughs> bi nga xam ne lépp possible na ak ñoom. te nag ñu def ko teg ko ci lan xuppaate. nappaate les gens vont aller en campagne loolu moom na si seen xel da man mii di wax ak yow bokkuma benn liste dugguma benn liste et je vais battre campagne pour que ñëpp voté sauf Pastef loolu moom mënuñu koo teree nit ñi lépp lu ma ci mën dinaa ko def buñ ma dumaa ma xam ne ñoo ma mën bu ma leen dumaa ñu nangu ne maa leen man mais je vais battre campagne pour que ñu dóor leen bañ tëdd ci suuf ñu xam ne ñoom moomuñu nit ñi lu ma ci mën dinaa ko def dinañ politique lii la te loolu lañ ma ko jàngalee dox la ak wax la yàlla dogal na maa ngi sama làmmiñ maa ngi samay tànk dinaa dox dinaa wax pour que ñu bañ a am majorité assemblée parce que dama jàpp ne danger la ci dëkk maintenant lu mais man tey tey dama tey dama jàppoon ne waa ye yeggal ma jàmbal bi mel ni euh, ma ma ma jàmbal mhm. yow xam nga ne li yoon bëgg te mu jaadu mhm. mooy da ngay notifier nit ki ne ko mënatoo jënd réew mi soit dañuy def enquête ci yow soit dañ la jàpp pour lii mhm. mais loolu lépp amul nit daal mooy toog pour ses caprices pour ses euh, problèmes personnels ak Thierno ne Thierno bu mu jëndati dëkk bi après on applique ça vous vous rendez compte nous sommes dans quelle république yooyu lañ doon wax ni daf fi jeex yooyu lañ doon xeex jàpp ne dina fi jeex c'est écœurant ngay gis ne après toutes ces batailles pas yi ñu teg yëpp et on retourne en arrière ci démocratie ci justice ci lu bëree bëri et euh, Madiambal le connaissant il va s'abattre boo koy rey nga rey ko <laughs> boo koy lekk nga lekk ko loo xam loo koy def mais c'est que il va s'abattre avec passeport sans avec carte d'identité ou sans il va s'abattre samay genre lañ quoi gën maa màgget. <laughs> samay genre dañ nous allons battre quel que soit alpha. Hmm. te kenn du ñu terroriser kenn du ñu tee wax te kenn moomuñu. Hmm. loolu moom na seen xel euh, dal dama bëggoon ñëw ci euh, élection législative mais avant ñuy dem ci élection législative bi. Euh, dam bëggoon nga wax ma tey euh, le bilan en mois tey boo ko doon nat fan lay yem. loolu kañ yow kañ yow am nga baromètre bi kay natt yow nag kenn xanaa nga bëgg poser question pour émission bi animé wu rek VAR <laughs> mais VAR c'est la star de de ces six mois. VAR bi moom moo leeral lépp. non mm-hmm. xam nga tey ji bu fekkee danga wax ci lépp wax ci ñëpp. Mm-hmm. nit ñi dañ la doon xaar. man j'ai pour une fois ma ne waa APR ndeke muus nañ nag parce que temps yi Ousmane daan wax dama naa ah, mais ñii lu tax suñ ki mm-hmm. mais ndekete ñoom vaar lañ téye woon di xaar saawaay yor ñu tegal ko ko mm-hmm. donc bi expliqué nañu ne ñii dañoo tële satisfaction bi ma ci am wax naa ko je vais me répéter encore mooy ne yàgg nañoo wax ma ne li ñuy wax manta ne mm-hmm. satisfaction bi ma ci am mooy bi ñu toogee man am naa dëgg xam ne li ñu doon wax yëpp c'est des voilà c'est des blabla mënul nekk mënul nekk c'est impossible te bu mënoon nekk du ñoom ñoo ko mën parce que amuñu xam-xam dëgër nañ bopp. kon yow jàppoo ne ñii buñ leen joxee tey euh, majorité assemblée ñoom li ñuy wax dinañ développer réew mi gëmoo loolu yow. léegi yow entre lii nga ma wax nii ak li ma Ousmane waxoon il y a huit mois ban laa ciy gëm ne ma maanaam il y a mois il y a deux ans ban laa ci gëm. ne ma majorité bi buñ ko jox pouvoir bi parce que dëkk pour mu dox il faut que opposition bi am doole biir assemblée di mën a contrôler les actions du gouvernement ban laa ciy jàpp ban laa ciy jàpp finalement nit ñi sax dañuy réer ban Ousmane la ñuy on va se sur quel Ousmane. xëy na boobu c'est l'opposant bu amoon tempérament moo doon wax. bu jàppoon ne mën naa yor réew mi ëllëg. Mhm. moo doon wax. Mhm. ça veut dire que doon wax xam na ko. suñu jàppee ne mooy mu sell mi mooy mu bëri xam-xam mi kon li mu doon wax xam-xam la mais loolu la war a appliquer ñii jox leen majorité danger la pour ce pays. lu tax mu doon danger. danger la dans la mesure où dictature lañ fi bëgg a installer mooy kenn du wax kenn du wuuteeg ñoom ci par force nit ñi dañ leen a war a voter dañ leen a war a gëm. mais même yow xam nga ne loolu mënul nekk si jamono fii mu toll nii. waaw mën naa nekk ak mënul nekk dèjà gis nga ni ñuy jéem a def média yi. Mm-hmm. ñëw sax nag bay osé naan dañ koy org <laughs> non non foofu moom foofu moom ministre bi dafa dafa nelaw. no j'ai beaucoup aimé la réponse de Miki Maram Ndiaye. Mm surtout dernière phrase bi. Mm prochaine fois évite les fautes. Mhm. yow li nga bëgg a corriger sax yow yaa ngi ciy def ay fautes en vouloir corriger. Mhm. <laughs> loolu noo koy corriger c'est-à-dire écrire euh, voilà un document un message benn communiqué. le gouvernement fait énormément de fautes. Mm -hmm. vous vous imaginez niveau d'incompétence boobu noonu ñu nekk ci loo xamante ni wax dëgg yàlla xalaatuma woon ne Sénégal dana fa mës a dana fa mës a dem foofu la gouvernement bi yóbbuwaat réew mi ñooñu nag buñ ne la mën nañoo defar dara wala mën nañoo assainir dara wala jot majorité mooy tax ñu régler réew mi dañ lay nax te yàlla xam na ne ils sont en de jouer encore avec cette population la ils vont rien rien rien régler lu dul yokk seen doole pour mën a jéem a dundaat ci kaw askan mhm. ci loolu lañ nekk mais en six xool leen ñoom ñëpp ko gis mu ngi <laughs> liñ daan xasee Macky Sall mu ngi guux yi lax ak réyal biir <laughs> ñoom ñëpp waaw gis nga léegi bu ñuy dem fenn seen cortège yeeg seen convoi ñoom ñëpp ñooñu joxaat leen assemblée nga xool seen kër yee gën a neex rek wallaahi bi ngeen ci gis seen bopp te nag ku ma wet dinañ dem faut tout faire pour que am ñu taxaw nekk ay sentinelles face à ces gens là. Mhm. pas pour bloquer le pays mais pour que xool lépp mu jaar yoon di am les bonnes information di ko indil askan wi mhm. askan wi di xool la lam cay jël ak mu cay tànn ak lam muy yóbbantewaat ay ndawam yoo koy nekkal ci penc réew mhm. se nag pour que loolu coalition yëpp laa ko boole. que ñi fay nekk ñu bañ fa nekk di représenter un président de la république ou une coalition. ou un président de de parti. ñu nekk nag comme son nom l'indique de vrais députés du peuple loolu moom c'est un combat boo xamante ne man personnellement dama koy mener et je vais y veiller te hmm. incha allahu rabbi on va tout faire pour que ñu am fa ay députés yoo xam ne askan wee leen ñor du parti politique du coalition du groupe parlementaire du président de la république hmm. incha allahu rabbi waaw xam nga tey boo ne pare nga pour campagne hmm. euh, pour mu nekk euh, tous contre Pastef euh, xam nga fu mu doon gën a yombee mooy nga koy def ci foo xamante ne gis nga une opposition debout boo xamante ne mën nga ne opposition bi kat am nañ taay mais daanaka Sénégal presque mun nañ wax ne presque sax amul opposition ba tey ñu nekk Pastef sax dañuy tooñ ba ne Sénégal amul opposition gars yi wax ci télé yi rajo yi ñooy opposition bi comme genre Ameth Ndoye mhm. non non xam nga ñoom ñoom bu ñu bëggee diaboliser lu ne li ñuy wax aujourd'hui ci peux ma me dire que li muy def c'est pas de l'opposition parce que ñoom jàpp nañ ne Bougane pesé wul amul xam-xam. waaw mais loolu nag élection moo koy définir. Mhm. no amul xam-xam ñoom ñoom xam nga loolu mooy xam-xam ci ñoom. Mhm. mooy Ousmane yaa baax yaa rafet yaa gën yaa seel de. ñoom <laughs> foofu la xam-xam xam ci ñoom foofu la commencé foofu la yem waxul loolu li ngay wax du xam mhm. ñoom foofu la xam-xam ci ñoom. jàpp nañ Amadou Ba dafa ragal. waaw no xam nga il faut par exemple ci Amadou Ba dafa ragal Khalifa Sall tàppet la macha si macha ñun guerre lañ jëm wala dañuy tabax. dañuy tabax c'est-à-dire ñun est-ce que kiy gagné réew mi wala kiy gagné assemblée ay charge de lañ koy jox ay kalachnikov ay AK-47 wala dañ koy jox ay jumtukaay. pour mu tabax réew xam nga ñoom tey tey nit ku ne ni nga ñëwee. moom ngay présenté woo parce que ñoom dañu def gat sa gat sa bay egsi. xaaral ma wax naa ko barki démb dama koy waxaat. Mhm. opposition bi ak ñun ñii fi des. Mhm. buñ leen toppee dañuy juum. Mhm. ñoom defuñu fi dara moo tax toj rek lañ mën ñun nag parti yi ñu mës a jaar wala fi ñu mës a bokk. dañoo tabax ci réew mi moo tax ñun war toj waruñu ndax bu ñu tojee ñun li ñu tabax la ñuy toj ñoom tabaxuñ fi dara te gëwma ne dinañ fi tabax dara fii waa bennoo bu fi jénn laal BRT bi li nga defar nga yàq hmm. nga laal teer bi li nga defar nga yàq nga laal stade bi li nga defar nga yàq nga taal tali bi li nga defar nga taal par contre ñoom mënoon nañ ko parce que non seulement c'est des nihilistes mais c'est des gens yoo xamante ne amuñu benn ambition lu dul seen bopp ñooñu am nañ droit toj ci doomu aadama mhm. ku ñu dem ba àdduna yëpp maase ne yéen ay fetkat ngeen kooku mhm. li ñuy wax ci yow yow ban <laughs> importance la war a am mhm. donc si samay nopp ci samay bët wax dëgg yàlla seeni wax accordé wu ma ko benn importance nee naa kañ laa nar a dute ne yàlla kenn la jour bu ma déggee waa passé fi ne yàlla kenn la jour boobu laay commencé dute ne est yàlla kenn la <laughs> parce que ruus nañoo wax dëgg ah. waaw Euh, merci beaucoup ci li nga jotal a leeral. Euh, ñu dem directement ci actualité bi. Euh, gis nañ jamono jële passé le premier ministre defoon sorti ci ay affaire voile ak yooyu ba démb gis nañ ne euh, le premier euh, le ministre de l'éducation Moustapha Guirassy génnee na arrêté bi buy wax ci règlement intérieur établissement yi ci même jour ñu gis ne am na école boo xamante ne am na ab xale bu jigéen maam dafa muuru woon xëy nañu ñu ko am am na si ñu ne dañ ko dàq ndax muuraay bi ak yooyu Euh, sujet boobu ban effet lay def Ameth Ndoye c'est man c'est très déplorable mhm. dans la mesure où que comme à son habitude nag xam nga Ousmane moom dafa bëgg populisme mhm. c'est-à-dire du sujet boo xam ne dañ ko waroon indi ci place publique bi di ci di ci débattre parce que c'est tellement sensible que mënoon nañ ko regle en interne xool école yi waxtaan ci ak ñoom même su fekkee c'est le ministre qui va déplacer wala euh, IA yi wala IEF yi je sais pas ñoom ñooy dem ñu ñu waxtaan ak direction yi ñu xool nuñ koy régler pas mu nekk débat sur sur la place publique. parce que ba mu koy wax grand théâtre la ko waxee woon. jour boobu noonu ban sens dafa amoon wax boobu amu foon benn sens. mais moom il veut être le centre du monde tout le temps nit ñi di débattre ci moom di waxtaan ci moom yooyoo ko neex dem alimenter réseaux sociaux yi yooyoo ko neex il vit que de ça maintenant le coup est déjà parti. Mm-hmm. wax bi ñëw na jur na ay polémique mm-hmm. ñun nit ku ñuul d'une manière générale waxuma chrétien ou musulman de. Mm-hmm. dañoo doy waar. Mhm. nous sommes provocateurs. tu vas voir cette année-ci beaucoup de provocation allant dans sens. Mhm. man maa la ko wax. parce que xam nañ ne sujet bi fi mu toll nii laal nañ ko sensible na. Mhm. par rapport au temps mën na jur polémique mën na di nga ci gis façon xeetu defin bu ne. façon tappale bu ne di nga ko ci gis bu mën a jur coow ak façon seytaane bu nekk. te lépp li ñu ko yóbbee c'est notre premier ministre mënoon na ko éviter ñu waxtaane ko en interne. waxtaane ko ci suuf règle yi ñu cay jël wala décision yi ñu cay jël ñu def ko ci maintenant nag c'est le musulman qui parle. Mm-hmm. ñun jullit yi ñun. Mm-hmm. bu ñu bëggee suñuy doom yor éducation islamique dañ leen di yóbbu ca école ya méngook islam. Mm-hmm. c'est contradictoire Thierno Malick ne moom dafa bëgg doomam di muuru. di roy soxna Khadija wala maam jaaro wala Umu Kalsum bu suñu maam Alhaji Malick. mu jël ko yóbbu ko école catholique. saa waay nit dangay ngay mu ngi mel ni ab chrétien bëgg doomam mokkal bible mu jël ko yóbbu ko daara dina man bible. soyons cohérent ñi bëgg seen doom yor jikkoy jullit am éducation islamique nañ ko yóbbu ca école islamique yi c'est telement simple pour man loolu warul am polémique wax dëgg yàlla. parents yi ñoo wara a cohérent rek. voilà maintenant nag damaa bëgg sama doom mel ni jullit yor jikkoy jullit ñu yar ko yaru jullit nga yóbbu ko foo xam ne yaru jullit amu fa bëgg nag imposer yow say loi jullit ca école jàmbur ah ça devient compliqué. day nuroog jaay doole te warul demee noonu nag. waaw mais foofu aussi dafa am euh, sew sew. mooy sew sew bi xam nga bu constitution bi euh, féetee kaw règlement intérieur école bi. bi ne eh, eh, ñëpp ñoom ñoo war a yem. non Thierno <laughs> ñoom ñëpp ñoo war a yem. j'ai bien précisé non xaaral bi <laughs> may wax waxuma citoyen. waaw non dégg naa la léegi waxal j'ai dit musulman. waaw léegi en tant que citoyen bi waxu constitution bi nañ ko fi teg mhm. parce que constitution bi moo ne woon premier ministre na dem defi DPG te dem defu ko. Mhm. constitution bi moom. Mhm. saa yi ak ñii gisuma valeur bu mu amati. Mhm. bërki de mboo Ndiaye la leen wax dem leen defi DPG defuñu ko bërki de mboo Ndiaye président de la République constitution moo ko tënk may ko mhm. doole mu def ko fi wax ne le 12 xaw ma le 13 dina dem mujjul dem. ñu mujjee tas assemblée bi donc ñoom constitution bi saa yu leen arrangé rek lañ koy utiliser. cette fois-ci sur cette question là man bëgguma ci waxee droit ou loi ou quoi soit. ni ma bëgg ñu analyser xam mooy la socialement. lim ñu mën a yàqal parce que constitution nag ak doole bu mu mënti am jàmm moo ko ëpp doole moo ko ëpp njariñ ci réew mi mm-hmm. am na loo xamante ne jàmmi réew mi moo ko ëpp solo nañ ko gérer socialement avec intelligence ku nekk la nga yéene ak la nga bëgg sa doom mm-hmm. yóbbu ko fa mu méngoog sa diine que ça soit le chrétien ou le musulman mm-hmm. man mënuma comprendre nga bëgg sa doom méngoog <laughs> jikkoy jullit wala méngoog jikkoy kat nga yóbbu ko école bu contraire ak sa religion comme ça nañ man dama bëgg rek ñuy waxante dëgg. su fekkoon nii tey jii un chrétien moo yóbbu doomam ca daara ja mu meesu sol. Mhm. sol mini sëriñ bi dàq ko wala nangam ak nangam gaw ma ne coow li dina am. Mhm. soyons conséquents nag ñu ñu ñu daal. Mhm. te yàlla rek tax. waaw kon daal yow noonu nga jàppee ne maanaam buñ dowalee xel mu màcc rek coow warul am ci lii. mais bëgguma mais ana ana <laughs> Thierno ana doomu jullit. dem di jàng école catholique te yaayam ne moom dafa bëgg mu mu yor jikkoy jullit wala ana doomu catholique dem di jàngee école jullit te papaam ak yaayam bëgg ne dañoo bëgg mu yor éducation christ euh, euh, christianisme waaw christianisme est-ce que loolu loolu loolu maanaam xel nangu na donc lii lañ bëgg a werante ci réew mi ku ne yóbbul sa doom fa nga jàpp ne moo méngoog moom ak éducation bi nga ko bëggal pour que débat bi jeex mm-hmm. waaw man daal pour man ki yóbbu doomam feneen bëgg fa imposer loi wu te foofu du du jàng du école religion pour man koo tooy. Mhm. loolu sama xalaat la en tant que ah. jullit. noonu laay mhm. àttee affaire euh, ñu jàll ci ci ci beneen question. Mhm. Euh, bassiru Diomaye Faye bañ koy tabbee mu nekk président de la république ak léegi daanaka def na euh, six mois. si six mois yi comme ni nga ko waxee gis ñu déclaration politique général avant six mois yi doon nañ dégg la projet Pastef projet Pastef mais finalement waxoon nañ ñu septembre sax projet bi dina am. mais là mën nañ jàpp ne la 14 septembre mag nag enfin le fameux projet. Euh, Maodo Malick dama lay waxaat ci ñi nga xam ne ñooy Pastef parce que mais cette fois ci ñu ngi def lancement. pour wane ne la 14 grand théâtre ba daje fa après théâtre lañ fa teg théâtre boo xam ne ay géwél a toog di naan Ousmane ka baax Ousmane ka maandu Ousmane jullite Ousmane gën ci Sénégal moo gën ci Afrique loo xam ne 10 ans ñu koy wax. Mhm. Euh, am na lu ma waxoon benn jour ci plateau nee naa leen garaawaayu Ousmane. Mhm. bu tolloon ni immeuble garaawaayam. Mhm. wax ngeen ba mu wàcc ni garaawaay. amatul benn valeur léegi nag li ngeen di fexe mooy garaawaayam ñu